aywa auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima wa radiyallaahu taala an ashaabi rasuulillaahi laa hawla wa laa quwwata illaa billaah al-aliyyil wal taatufi bi nasratin tartatir kon mbokk yi a ah, ñi ngi woon ci al Murtada ibnu Muhawiya Atandaqa ci lañ nekkoon dese na benn xasida ci la ñuy mottali juróomi wëy la waqaala aydan fi madinati Cheikh Ibrahim radiallahu anhu madinatu Cheikh Cheikh Ibrahima li diini sayadat wa siyadat li itaani bayaa diini madinatu Cheikh Ibrahim dëkkëb Cheikh Ibrahim madinatu Cheikh Ibrahim bi sayyidat dañ koo dëgëral li wasiidat ñu dëgër ko li ilyaan bayaadi ne ndax dikk koy wexi moom ndax naari dikk si dëgëral nañ ko ci diina ji dëgëralee ko kàttan loo xam ne naari dañ ci ñëw walil bayaadina manjaatun wa multahidun mimma yaqaafoona fi dunya wa fi diini walil bayaadini ñeel nañu weex ña manjaatun muccee kaay wa multahadun ak wéeroo ci mbir na amee ko naar yi am nañ muccee kaay ak wéeraay ci mbir mi mimma lépp loo xam ne yaqaafoona ñu ko def fi dunya ci àddina wa diini ñoom naar yi ak ñun seen <laughs> waaye nag naar yi ñoo xam nag xam nga ragal loo xam ak ragal loo xamul naar yi moom xam nañ luy ragal ci duniyaa ak dina fooy muccee mooy Madina bayaat yi day am xam ne tara saratina am saalu masakina fii haawal masakina am saalu saratin la ilaha illallah tara da nga gis ci Madina ak saratina buur yi amsaal masaakin ñu tolloo ak miskin yi ñoom ñëpp buñ dikkee ci kanam bàyyi dañuy góor buñ dikkee ñoom buur yaa ak miskin yaa ñu tolloo yaa wal masaakin nga gis miskin yi amsaalu bi salaat yi ñu ne buur ya ndaxte nga gis miskin boo xam ne mu sore ak mbaa ma mbaxanam aw sab rek <laughs> ah nga ne kii ci buuri bàyyi yore yi la bokk loolu <laughs> rek moo tax taalee bàyyi duñ ko gis ndefoor bi nga maam ki jar jox sarax te fekk na xam nga xaw sa yi ñoo indi ñoom bu ñu ñëw dañuy indi ay ay ay walis walis yi ay yére du dee su ko defee buñ dikkee sëriñ dañ ko dañ ko jaay dañ leen ko séddale yow nga dikki sëriñ mu jox la da nga maam sa boxal na aw sa bokkal mi ngi jar ay ñaar fukki junne wala fukki euro koy wala fukki junne jox la yére ak kaar nga dikk sol da nga am jaar ci digg bett ñu ne ah ma sawaay moom eh, wax dëgg de foofu nga mit li ngay ji baana loo xam ne moom buur ma toll wala xam nga gën a foofu buur ففي أساتينها تير ديانة مبني فيما حبس فيا أبس في الأساتين ففي أساتينها ca li nga xamante ni nekk na ca e, dawwaay bi tiinul madinati bi maanaa li nga xam ne mooy cosaanam mooy matière am ba nga xam ne mooy tabaxee kaaya tiinu madinati man ni yun luñ tabax la bi maanaa li ma la bëgg a wax eh, eh, Medina euh, suuf sañ tabaxee Medina moom lañ tabaxee bii Medina ndaxte bàyyi na sarat laa sëru madinati nabi secret Medina ba doon daw ci Medina yontu mi ngi daw ci Medina bi xubusaatan hmm. fii bila tëre bi loolu la bëgg a wax fa fii asaatiniha ci yenul madinati nekk na ca bari tamba bann madina mam yun fa yaa abasa baax na maa liga nga xam ne fil asaati ni mi nga nekk di xamante ni mooy suuf su nga xam ne mooy bari boobu bari bi tabaxi dëkk bii madina ak kaba doo ko def ba nii de xam nga nekku ci suuf trop déedéet ma nga xam ne ke dëkkoo suusa xamuloo ne kenn ku ne fa nga dëkkoo yow ma ko dëkkoo lay lay lay lay lay dundee kon Medina yonente boo gis ñu ne bàyyi dëkk bu ñu weerantee Medina bu ñu weerantee ñaar dëkk bu ñu ca weerantee ba féete yoon ci moo gën kon nag bu ñu waxee dëkk yi bi dëkk la ba dëkk nga xam ne moo la yoon ci bi dëkkee dëgg la waa tey nag am na Medina ëw ëwul am na Medina àq léegi nag Medina ëwul mu ngi nii mën na àqul mi ngi at nii waaw kon nag léegi nag kon nag wala aaxira xëy lakk yaakaar naa kenn wax ne kon nag mën na gii nag nanga noonu kenn wax dafa gën kenn wax kenn wax loolu moo gën de waaye nag moo gënal xam nga moo gën ak moom a gënal <laughs> ah <laughs> loolu lañu war a leerante kon nag na gii nii nii ah aka baax na te nag li wax nag bàyyi ma ko ah léegi almantor ibnu baba ibnu fata al alawi beneen naar lay jël si waat moo nekk ci ah jal bi léegi baal daaw si xarit la anoo min loon noonu baal da awlati ko baal da se se se radiyallaahu min loon noonu bàyyi ba mu del see bàyyi koo loon noonu ah te tukkee mi nga xam ne mooy dañuy tukki mu ne allahu hayyu hayyun ah, laa yadoomu siwaahu wal kullu xadmun ma siwaahu fanaaw wal mawtu awdun kulluna wuraadu maa an maa maa an maxaalin mawtuhu bilaa allahu lahu rek xayun mooy ko dund laa yadoomi dafa sax saakub yàlla laaw rek mooy dund lu ko tidd wal kullu ku ne xat mu lu war laa fànnaawum jeex maa saa xul yàlla lépp loo gis war na ne dina jeex lu yàlla rek moo jeex yàlla rek moo def rek dafay jeex kon yàlla rek dana dee wal mawtu dee xaw dun mbalka ndox la mooy bes set basee kundu naa képp ci waari di war dina rot ci balka ndox te mbalka la moo xam ne kenn ku ne doy ca naan si fama fama mawtuo xan mu xaalin bi maanaam ilaahun fama mawtuo ilaahun mu xaalin bi maanaam amul jom mawtuo ilaahun ilaa bi maanaam lu may laahu amul ko jomba dee lu may yàlla dee moom jombul kenn kenn xanaa yàlla rek kon nag buñ ne def na ko booru ñoo jaaxal ah da nga waqa daal bihi isfi qadaahu ridaahu waqada dogal na al ilaahu yàlla xaala maraaratin wextan waqaama boo xam ne moo ko am moo ko amal yàlla dogal na lu wex xat loo xam ne moo ko amal mooy lan ñu ne Ibrahima Ñas bi yéen a bi ci laa def is nekk na ci gërëm daaw gërëm yàlla lu mu dogal rek dañ ko gërëm xam ko wex xam kuy bàyyi xam nga naa li tax mu mitoon xam kuy bàyyi dëgg-dëgg ñu ne bàyyi dem nekkoon la koy jooy am na ñu koy jooy moom daal ñu jox ñu mooy jox ñu daal lekk mooy jaay ñu yaay mooy ma daw nangam nag waaye waaye <laughs> la ilaha illallah la ñuy jooy ñoo ëpp loolu wa isa naana il qalili fama ara lil ayni illa lawo wa risaahu wa isa naa bu tàggee anaani tàgg ka al qalila xarit ba tàgg kari bay tàggee ne xalit jóge na fi fama ara gisuma lil ay ñeel bët bi ilaa nawoo lu mooy ay jooyum orisan ak da ko jaale bëri bëri daal bëri yaa ngi koy tàgge mooy jooy rek ak ko jaale aay waay waay bàyyi ñu nga si diggaale waaye ñes ah tëb kii mi a ma a qoha wadamoo asala muta mutawaaxin ah taraam tabki dana ko jooy bir ay ci bët asadidi bi nga xamante ni ah bu dët la ma xaal li nga xamante ni mooy ugg ba tëb da nga ko jooy ba sa bët def ay dët wa damoo rongañ asfala ca suuf ah mustawaahu mooyam taraalu ëllëg rongañ mu ne toq ci suuf rongañ yaa ngay toq ci suuf am fu mu ñëw ci rongo ngi toq rek toq toq tuuti bët yaa nga nekk dëtt jooy bët am dëtt a xaqal xalilu bokaaho bi dami bi eh, damin waman lam yëpp ki tax dawoo nekmatul ay naan xaqa yelloo jaadoo na yelloo na alxalil xalil bokaaho jooy ko jooy bàyyi jaadu bi damin dere sax la wax na jooy bàyyi ko dere jël waman loo xam ne waman képp koo xam ne mi ku jooy ku jooy bàyyi tax dahu dana torox nakamatin xéwal xëy naa bi maanaa fokk lañ bëggal ñaari bët ku xam ne xam nga kuy bàyyi mu jooy mu dee jooyo ko sa bëgga sa bët am niqama dañ ko bëggal jafat jafati jufoonu naw ma baadama naa mi melul firaasil jën kaana jafaaw jafati sori na aljufoo na bériya andooma nelaw bët ya sori nañ nelaw kañ ba dama naa mii gannaaw bàyyi nelaw yo mooy gannaaw bàyyi de bay bay na bàyyi nelaw na bi mooy nelaw na xam nga naar yi benn benn benn tukka la mu ne benn pël mu ne ah walaay wolof ñoo am ci jiit ñoom dañu wax bàyyi jeex na dañu wax bàyyi nelaw na <laughs> xam nga bàyyi dee may may ma may dégg nga dañuy wax ñoom eh, dee na dee na dee na déedéet man de doo dégg ci man ba ma ba laa ñu ustaas ñu ne bàyyi ba bàyyi ak ba bàyyi dee dee loolu la il astafurlah la ma ko nekk sax <laughs> ba bàyyi nelawee rek kon nag beccangal na bët yaa ànd naa ma nelaw ba dama mën naa nuyu gannaaw ba nelawee mbirul firaas yi men lal aljan ba kane kana jafaawu bi maanaam weddi la eh, weddi daan tudd ci lage ñoom itam mën a tudd tudd ci kaw lage soo bëgg a tudd rek sa xel rek bàyyi bàyyi def ay bàyyi ay bàyyi dem na def bët yam mën nañoo nelaw wér ya mënuñu tudd ci kaw la ñuy wax qaala abi isaqa falyakilsi yasa ila an laa yadeha bukaahu kon mu ne qaala abi isaq te abi isaq falyakil jooy kuy jooy na jooy abi isaax àll si koo xam ne yestan ma ngay dem ila an yeddiha an laa yeddiha ko ndax bañ a sànq bu jooy boo bëgg a ba sa jooy bu mu sànq jooy te du bàyyi jooy sa dikk sa jooy du dara <laughs> jooy bàyyi daal boo jooy bàyyi daal sa jooy sànq <laughs> dégg nga de ila an laa yeddiha bu kaaw ndax ba bu mu sànq ak jooyal kon fa njëkk yi ah xelmun xasiirun ah ba soxoo wa riyaadu sikrin ataran bi saw fa njëkk yi na jooy bàyyi xelmun xam-xam xasiirun bu bëri ba soxoo boo xam ne moo ko daan sotti na ko xam-xam jooy wa riyaadu sikri ak solitaat day sikare xatarat boo xam ne dañ ko daan xeñalee bis naa xëy na baay géeyu si kër yi xam ne xëy na baay dañ ko doon euh, parfumé ba tey géej yi nga xam ne mooy géej si kër yi ñoom itam nañ koy ba nañ koy baal wóor tëkki dural la ci xat saakaxa fi ma si sil imdaadi aw xolafaaw wóor tëkki na koy baay lan ak duraru or ak li nga xam ne si xat saakaxa ma ko doon tëkk fi ma si sil imdaadi ci takk borom tëbb yi borom tëbb yëpp. woyam doon tëgg da ko tagg yonent bi na ko woyee jooy aw xolafaa yi wa nga xam mooy xolafaa yi nam da leen woyee ñoom woyu yi daal nañ doy nañ jooy bàyyi ndax te ñu gis koo xamante ni mën naa taggat yonent bi comme na ko daa bàyyi na tëggee ak saabaan bi ah laysat xitaalu sayfi bil bokk bi la si yadaxool mu naqabu aw yëttaloo arsaaw laysa xitaalu sayfi nekkul jikko yi bàyyi jikko sëriñ biir boo di di sëriñ àll ci bi nga xam ne yestadee ba nga ko waxee al mu naq bi nga xamante ni mooy kumuru ak yitti laa guddal risaa bi nga xam ne mooy gojam ba maanaam loolu boj ba guddul bàyyi sori ga koy sori jikko yi sori moom dem na de waaye jikko yaa fi de boj bi nga xam ne ci doon rootee ah jël ci guddal ah salxan makkata wal madinata noora foo min noora xaal xut si kaara diyaabu sallaajan xanu ci bàyyi makkata ba dee makk ngeen laaj nga laaj quoi yow xam nga sa sa waay ji noo xam Ibrahima Niass daan ci ñëw teew ah te de nañu tàgg nañ ko loo xam makk loo xam ci waa jooju wal madina ak madina laaj ko nooru moo leer mag leer leer bi war a ndikk kon bàyyi ba muy dem Makka ah, ko min nooriha te leer alqudsi ak Madina leer yu sell ya nga xam laaj ko Madina laaj ko Makka laaj ko Madina ndax daan ngeen jot leer yi ñu ne waaw wasal bi mu ومصر التي وإلى مدنة وما وراءه وراء وصل يدي رزقا موي سيري ومصر laa jël misra xarim laa tukki yi nga la bàyyi dem tukki ci mooy wa ila madyana wala madyan wama waraa waraa ak lu nekk seen gannaaw yi gannaaw laaj dem kuy bàyyi ndaxte dëkk bu mu dimaan dana fa génnee ay xam-xam taaral ko taaral koo xamante ni li muy yar yaa ngay yar ba tey wasal ah ndi ko wasal wa xayriha an ilmihi wakkanoo ko fi samra kaana sadam wasal laajal Lagos Lagos Lagos laaj ko wa xayriha xuram meneen mi xam-xam ak buru Lagos wakkanoo kano laaj ko fa fii samra nekk ci alam nga xam ne alam nit ñu bi kaa nekk na sadaawo ba kàddu bàyyi ga mooy sadaaw mooy kàddu nga daan daw du xoomaat sadaaw mooy kàddu ga daw ci nga kam an faqat yum naa ko wala la an faqat kam ñaata an faqat la dépensé yum naa ndeyjooru bay min xeyr ci alal xeyr la firi yiw day firi alal ñaata ay yiw la tasaare ci ndeyjooram wala muy ni xam alis nga xamante ni xat un fi xat yesraawu ndeyjooram càmmoy ba lam joxe kenn xam ko bi maanaa waa saayar waa baatin waa droit nan na defal ak gauche nan na defal kenn xam ko kam kaafirin an jaahoo kam min munkirin ajlaahoo kam min munkirin aslaahu kam kaafirin ñaata yéeféer an jaahoo mucc musal na ko ñaata la bàyyi musal dugaleen ci diina ci kenn ah, kam min munkirin ñaata ay contre la ko la laxas la maanaam wala la ko leeral la ku doon tontor ba nga dikkee mu tontu la mu leer ci yow kam min mun kiri ñaata contre yoo xam ne aslaaw dugal na jaar na ko safara bi maanaam duma na leen ñaata contre yoo xam ne dañ contre woon ba dikkee mu dañoo mu duma leen ñaata la ah kam xaadimi ah aqraaw kam min saa ilin a ataaw kam min saa'imin aftaaw la ilaha illallah kam min qaadimin ñaata ñoo xam ne ñëw nañ ci moom aqraawu koo xam ne ganale na ñaataa ko ñëwal ñim ganale ñaat la koo ko mën a xam xam ko de kam min saa'ilin ñaata ay laajkat ku ko dikkal yoo xam ataa yoo xam mu jox ñaat lañ kam min saa'ilin ba koo xam ne laaj na ay masala ANSA mu tontu ko ñu doon laaj ay question mu tontu ñaat lañ kenn xam ko kam-kam ñaat la doo kam-kam yi kenn doo ko ñaat la kam laaji in awaahu kamin mu'dimin aqnaahu kamin dirhamin afaahu la ilaha la ilaha illa ay mën naa ma jàng kam laaji ñaata ñu làqu ci moom awaahu mu làqu ko ñaata ay làqot moo dëkk mu làq la kam min mu'addimin ñaata ñoo xam ne dañoo ñàkk dikk ci moom ak naaw mu omaral ko kam min dirhamin ñaata ci ay dërëm ah faaw daf koo jeexe mu jeex tàkk ñaata dërëm la joxe ba mu jeex tàkk ñaata la koo xam koo ci xam ah man de tontu yi muy laaj yëpp mënu ko ko ah barin ah laawoo kam min masjidin daa im woo ala taqwaa kam min mbar ñaata tribune alaaw la yéeg ci kaw ah def discours am kam min masjid ñaata jàkk alsa la def fondement xeru njëkkam daxar yi moo ay fondement am maa ngi ko teg daxaraa taqawaay ci ragal yàlla jàkk jum tawax la nga ko teg ci kaw taqawaay yàlla ñaata la kaw ma ko def kam min muxti in fiaqi jasaahu ba da xanaadihi birxafi an aktaw kam min muxtiin ñaata ñoo xam ne dañoo juum caaq yi caaqam jaasaawoo fay na ko baa de ku juumoon ci bàyyi ba def ko mu dëng bàyyi fay na ko ko an mu ne baal naa la xaw ko de كم عاقل آساه لم يفعل به والله آآ آآ من جرى أساه إمامه كم من عاقل بari na ñaata ñoo xam ne añaane nañ bàyyi asaawu koo xam ne lor na ko lam yafar faale bi coom ñaat lañ ñaataa ko añaane da ko lor faale wu sax sa lore ñaat lañ wallaahu moom man jara ku dawal asaw ay loraangeem xamaa bokk caari ku dawal ay loraange ko ci bàyyi yàlla ko xaar ba du ko dal ba tax na moom gën a ne man yàllaa ma xaar ci yow ma la wax dara ndaxte xam ne man yàlla moo lay puus ne kaay dem ma seet sama waa ji ndax li nekk dëgg la ci moom bi bari na jaam boo xamante ni dañ ko dañu ko bëkk moromu jaam ci bopp yow lay seet ba xam ndax yow nangu nga ne man maay jàmbeem de maa man maay sa borom de soo gëmee ni jàmbi mënut a dikk cew man maa ko ebal cew nga ne pot xool ko ba mu neex la nga muuñ ree mu ne ah xam nga jàmb ci boppam xamul sax ku puus ko moom moom nag yow xam nga ku puus ko puus ko léegi xam nga nu muy mucc mooy day day ree day jàng ah man saa waa ji dama ko wax dama ko yekk ma dem ba tey ak ñu ma tëralee ma ne kii nit dégg nga Ah, dégg nga Touba li artin sarafat a ah, bir fati aw saaraha min qablu fi mahyaw Touba tene li artin ñeen suuf yoo xamante ni sarafat tee dee nag di war a fati yaxi bàyyi yaxi bàyyi suuf suñ ko denc ah moo tax aw saalaha wala mu seera mu mu mu mu mu siyaare si ko min xam ne jekk fi ma yaaw ba may dund nga dikk di ko siyaare tuubaa cafal yaa man a asaf asaf a asafta alal qadimi bi faqdihi sabran ala ma qarqadaaw laaw yaa man yam yaa xamante ni asafta yaa ngi yàq xaalal qalili qalil bi fax di ñàkk ko ñàkk yow mi ñàkk bàyyi di ci tiit maa ngi lay dénk sabran muñal xaala maa ci ne nga xam ne xarxadaa dogal na ko yi ko muñal falaaw arhama bil xalili iaaratan walhamdulillahi lasi ataana falaaw yàlla arhama moo xewle bil xalili yàllaa ñuy xew a waaye nag i aare tan ñu ko abaloon nag borom abli nag saa yu soxlaa nag ñun ñun ñu ko abal ñu ci ñu ci rek di ci xew léegi nag moo ñu ko kon nag waram bi sant la ñeen lay ëllëg nga xam ne ataaw yàlla mi ko joxewoon ñi ngi koy sant moom ñi abalu kii maamaata man ab xaa sanaawoon xaalidan sanaa an xaalidan fii sa bii tata saabaqul afaaw maa maata deewut man koo xam ne ab xaadis naa sa naan tagg xaadin boo xam ne daf fee des ku dee bàyyi fi tagg woo xam ne du jóge ci mukk deewul fii sàddi rabam tata saabaqoo lay jiitante afaaw gémme yi tagg woo xam ne gémme yi dañuy kurtu ci dafa ràbb kii na daa ko woy lii kii woy ko lii da ko tagg kooka xay waaye bu ñu yàqal leen ko kat borom gémmiñ yaa ngi ko ci kat ko ba tey bu maa xëyoo kon nag fa isa fa isa una fii bi nuurihi wariso wariso asraarahu wal xaamiloona si waaxu li waaxu kon kon nag fa fa saa una suñu jaare wala suñu dëgërlu fii ci moom ba noohu ñu ngi koy def ay doomam woowaari su asraar yi ñi nga xam ne ñoo doon ay <coughs> secret ñun ñu ngi dëgërloo ay doomam de ko jàll wala xam ne nga ñoo xam ne li waaw ak xam ne ñoo xam ne bi nga xam ne moom la bàyyi ñun daal ñu ngi jaale ñoom daal ñu naan si gën diggaat rek falaahu yafasum wa yarfoo si tuxum wa yesaluxum fii yum ni yi waxi maatum falaahu yàlla yax fasoo mooy sax moo doomi bàyyi ak njabootam woyal boobu mu yëkkati siitoom seen bàyyi woyee sa loxoom moo leen di keral fii yum nii ci barkeem wa ak xaarangeem amin yal nañu bokk ci biir keral xaarange sàlla yal julli al ilaahu yàlla ala nabi wa waa ñu sahabati ak sahaba ajmahina ridaawum ngërëmam yàlla def ci ngërëmaat si ñoom maa daa xat fekkan naa al araahu bi duniyaa ci àddina fépp ar yaa ngi réew yaa ngi am xat ci àdduna daanaka àdduna gii du dëkk kay réew moo tax bu dëkkee dafa am dafa dafa nekk ci xat-xat moomaa sa idat fépp taxe na bi ruweti hubbi et hubbi haa loq yaaw dañoo mer ñépp nga xamante ni ñi ngi fexee ci gis ko bëgg bàyyi ca dajeeg moom tey ñu koy am nag yal na salaatu wasalaam nekk ci yonent bi aali bi ak kon nag asalaamaaleykum wa wa barakaatu. şey yok.